yu nuyoo bu baax ne préfet bi Diallo ak président tribunal ak procureur bi Ibrahima Ndoye ak ñoom ak seeni collaborateur dëgg la ñoom fi la ñu bokk sax ndax ñépp njabootu Cheikh Sidi Hadj Malick lanu yàlla def nag ñoom ñu ñëw fi tey pour bokk ak ñun jotaay bii ku am gan nag ni ko agsil dal ak jàmm moo tax ñoom it ñu wax leen loolu waaye nag loolu yi ñu leen wax ñoom ak mbooloo bi ñoom ñépp ñoo ko bokk ñuy rafetlu nag ñoom seen teewaay di leen ñaanal yàlla nag di ko ñaanal sunu bopp yokku ak dara bañ a yàqu yàlla boole leen sàmm sàmmuñu ku ci nekkit la nga xam ni moom nga yore yow ci liggéey yàlla sàmmal la ko boole la ca sàmmaale la bay bay yaakaar bañ a tas ci yow sa yaakaar it bañ a tas ci keneen yal nañ ko yàlla boole defal bi jaahi nabil Mustafa ñu ngi leen di nag yéen ñépp nag bégge nañu seen teewaay yal na yàlla gërëm teewaay bi gërëmal ko ñépp nag bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fatiha salaat alfatiha مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير تآوت من جالها بنظير الشيب والهام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 كتمت سرا بدا لي منه بالكتب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 واصرفها

الخلق كلهم واشتد سائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما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

الخلق كلهم وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا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 ربي وضائفهما والفضل منتشرا وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا مولاي الخلق كلهم الطفل إن تهمله شبعا واشتد سائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخم مولاي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

وفضلي ولا أسلمي مولاي صل وسلم دائما به النبينا والأملاك وافتخر daa bàyyi ko xel bu baax. mbooloo mu day nii kuy dem. mbooloo mu day nii kuy dem. doo def xaalis ci sa poche. surtout xaalis bu takk. surtout nag xaalis bu takk. loolu ngeen bàyyi ci xel. loolu ngeen bàyyi ci xel. moo gën nga sàggane ko. moo gën nga sàggane ko. ba ñu jël sa alal. ba ñu jël sa alal. te doo xam ku ko jël. te doo xam ku ko jël. te incha allahu. te incha allahu. dinañ fi posé ay radar ak i caméra ay caméra ñëw na ba noppi ñëw na ba noppi ki koy defar la ñuy nekk mu ñëw ki koy defar la ñuy rek mu ñëw dinañ ko def fii ci jumaa ji insha allah def ci jumaa ko ci buntu kër gi def ko ci buntu kër gi def ko ci kër Serigne Mansour def ko dugale ci sa loxo ci poosu jàmbur. ku dugale ci sa loxo ci poosu jàmbur. ñu ngi janoog yow ci ñu ngi janoog yow ci caméra écran bi dina la fi gis dina la fi gis. te su boobaa. te su boobaa. kenn mënul tee ñu yóbbu la police. toroxal toroxal yar la yar la. ndax këru diine gu nii. ndax këru diine gu nii nag. bés bu nekk bés bu nekk. sàcc nañ sama portable. sàcc nañ sama portable. sàcc nañ samay dàll. sàcc nañ samay dàll. tafu nañ samay xaalis. tafu nañ sama xaalis. ci këru diine goo xam ne. ci këru diine goo xam ne. waroon ngaa mën a sànni taxuñu un million ci mbedd mi. waroon ngaa mën a sànni un million ci mbedd mi. ba mu am juróom-ñetti fan. ba mu am juróom-ñetti fan. nga ñëw. nga ñëw. fekkaat ko fekkaat ko fa. loolu dafa xaw a ñaaw. loolu dafa xaw a ñaaw. te ñàkk yar. te ñàkk yar rek. ñàkk yaru diine. ñàkk yaru diine. boo yarul sa doom. boo yarul sa doom. ci mu gis alalu jàmbur bàyyi ko. ci mu gis alalu jàmbur bàyyi ko fa. du ko tàmm. du ko tàmm. boo gisee rek. boo gisee rek. bu ko gisee rek. laal laal poosu jàmbur yi. làmb jàmbur yi. dafa xaw a ñaaw. dafa xaw a ñaaw. te garaaw te garaaw. moo tax bi ñu ci waxtaanee keroog. moo tax bi ñu ci waxtaanee keroog. Eh, Ndiogou Alaaji Ndiogou. Alaaji Ndiogou. doomam ya nekk ci États-Unis. doomam ya nekk. ca Chine ca Chine. dégg waxtaan bi. dégg waxtaan bi. ñoo jënd. ñoo jënd caméra yi. indi ko indi ko. boo demee France. boo demee France. wala Italie. wala Italie. wala Espagne. wala Espagne. boutique yu mag yëpp. boutique yu mag yëpp. dañu am caméra. dañu am ay caméra yooyu. booy laal rek. booy laal rek. caméra bi signalé la. doo génn bunt ba. doo génn bunt ba. te sonewul. il faut ñu wut ko. il faut ñu ko. jamono ko laaj. parce que jamono ko laaj. jël nañ sama huit cent mille. jël nañ sama huit cent mille. jël nañ sama un million. jël nañ sama un jël nañ sama cinq cent mille. jël sama cinq cent mille. ci këru diina gu day nii. ci këru diina gu day nii. nga ñëw raaxaloo ci nit ñi. nga ñëw raaxaloo ci nit ñi. di def yooyu musiba rek. di def yooyu musiba rek. dàll noonu. dàll noonu. dàll yi. dàll yi. Eh, crime yi mu ndaw. premier mu ndaw. ñëw na fi sànq. ñëw na fi sànq. ànd ak. ànd ak. Euh, Serigne Jamil Moustapha. Serigne bu Serigne Mansour. ak euh, muy muy Serigne Jamil. waaw ak euh, Yves Crémier. Yves Crémier. waaw ak waa ak Boubacar Camara. Boubacar Camara. Boubacar Camara. nee na defar na. nee na defar na. un million. un million. ci mbuus yi ñu mën a def daal. ci mbuus yi ñu mën a def daal. muy mbuusu këyit. muy mbuusu këyit. moo gën bu bu. moo gën bu plastique bi. nga di ci def sa daal. nga di ci def sa daal. teg ko fi neex. teg ko fi la neex. wala ci sa pooj sax. wala ci sa pooj sax. du am sobe du am sobe boo jullee rek jël sa dàll dem boo jullee rek jël sa dàll dem booy dellu seeti def noonu booy dellu seeti def noonu ba ba mbuus may màgget ba ba mbuus may màgget wala mu xotti wala mu xotteet ndax itam dañoo gis ni plastique ndax itam dañoo gis ni plastique xaw a yàq suuf yi dafay yàq xaw a yàq suuf si te jur gi bu ñu ko lekkee te jur gi bu ñu ko lekkee dafay foodaan seen biir. dafay foodaan seen biir. ñu bëgg koo remplacer këyit. ñu bëgg koo remplacer këyit. këyit moom bu ko jur gi lekkee du ko wàññi dara. këyit moom bu ko jur gi lekkee it ko wàññi dara. Eh, mu ni ma nag ñetti conteneur la. mu ni ma nag ñetti conteneur la. nu ma koy def. nu ma koy def. bu bu ñëwee. ma ne ko bu ñëwee. da teg fii benn conteneur. da ngay teg fii benn. conteneur. conteneur. teg ca zawiya Seydil Hadji benn conteneur. benn conteneur. conteneur yi ci des nag. conteneur bi ci des nag. bi ci des bi ci des. ñu séddale ko jumaa yi nga xam ne. ñu séddale ko jumaa yi nga xam ne. ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi ci dëkk bi. lu ca waay mën a am rek am ko ci. lu ca waay mën a am rek am ko ci. un million ci ay. un million ci ay mbuusi euh, këy. man ñëpp xaj nañ ci. ñëpp xaj nañ ci nag. su ko defee kon. mais su ko defee kon. damay avertir rek. damay avertir rek sama mbokk yi nga xam ni sama mbokk yi nga xam ni moomuñu seen loxo moomuñu seen loxo bàyyi loo leen ci xel bàyyi loo leen ci xel kuñ ci jàpp nag kuñ ci jàpp nag bilaay bu asamaan ak suuf daje woon ne bilaay bu asamaan ak suuf daje woon du tax ñu bàyyi du tax ñu bàyyi la dinañ la yóbbu police dinañ la yóbbu police dañu yar la aslam ba ñu yar la aslëf weer la ba nga weeru weer la ba nga weeru mag ñu baax ñi mag ñu baax ñi am nañu yërmande ci ku nekk am na nañu yërmande ci ku nekk ba mu des sàcc seen mbir nangu seen mbir nangu bu ñu masaan dégg ku ñu ni dafa sàcc bu ñu masaan a dégg ku ñu ni dafa sàcc danaan dumal danaan dumal dumal na dee laa wax loolu la daan wax moom góor gi ndax bañ rek ku sàcc sàcc dafa mën a tas yaakaar et puis dafa ñaaw il faut ngeen bàyyi ko xel ngeen di sàmm seen poche ngeen di sàmm seen poche wala ngeen di ko def ci seen poche dën wala ngeen di ko def ci seen poche dën gars yi dañoo ay essayé wala boog ngeen def la waaja waxoon rek def la waaja waxoon rek dañu toog di wax ku ñu sàcc ku ñu tafu dañoo toog di wax ku ñu sàcc ak ku ñu tafu fekk booba ndeysaan sëñ Modou Mbaye fekk booba ndeysaan Serigne. Modou Mbaye Diakhou. Modou Mbaye Diakhou. rahmatullahi alayhi. rahmatullahi alayhi. soxna Asukan radiyallahu anha. soxna Asukan radiyallahu anha. daf ko yónni Ndakaaru. daf ko yónni Ndakaaru. jox ko xaalis. jox ko xaalis. mu wàcc Colobane rek. mu wàcc Colobane rek. ñu ni ko tef. ñu ni ko tef. mu làmb poos dajatul. mu làmb poos bi dajatul dara. xotti nañ ko bu yàgg. xotti nañ ko bu yàgg. mu riire ci nag ñëw. mu riire ci nag ñëw. fekk ma sama kër. fekk ma sama kër. ni ma bindal ma gaaw plainte. ni ma bindal ma gaaw plainte. xaw ma ku muy plainte. ma ma ko waaw. ku mu ni yaa ngi di ma xool. mu ni yaa ngi di ma ko mu am fa nag benn mbokk bu toogoon. nee mu ni. man de masee suma tafu. ndax bu may génn saay poos dara du ca nekk donc de kenn du ko tam waaye ku mën a def noonu itam waaye ku mën def noonu itam nga def ko bañ a def ci sa poos def ci sa poos dara su ko defee kon tabaarakallah su ko defee kon tabaarakallah damay avertir rek damay avertir rek pour ëllëg ëllëg ko defee. bu ñu ko defee. boo dugalee lépp lay jël. lépp lay jël nag caméra yi. mës na am bés. nee mës na am bés. ma dem Italie. ma dem Italie. muy sama premier voyage Italie. mooy sama premier voyage Italie. boobu benn Sénégal yi nekk. booba benn Sénégal yi nekk fi. benn Sénégal yi dong. benn Sénégal yi dong. dañuy wax Ousseynou Seck. bu ñuy wax Ousseynou Seck. maa ngi ko yoroon fii sama daara. maa ngi ko yoroon fii ci sama daara. gannaaw gi mu wutal ko bourse. ginnaaw bi ma wutal ko bourse. mu dem Tunisie jàng. mu dem Tunisie jàng. ba vacances jotee. ba vacances jotee. mu dem Italie. mu dem Italie. xam naa Italie dafa neex. xam naa Italie dafa neex. ba vacances jeexee. ba vacances jeexee. mu dellu jàngi. mu dellu jàngi. waaye vacances ñaareel bi nag. waaye mu dellu Espagne. Euh, Italie mu dellu Italie euh, ma dem fa nag ma dem fa nag euh, mooy sama première génn ma ni damay seeti Europe nu mu mel mooy sama première génn ma ni damay seeti Europe nu mu mel booba benn nit ku ñuul nekk booba benn nit ku ñuul nekku Milan Milan te mooy deuxième capital bu Italie te mooy deuxième capitale bu Italie ñaar ñu ñu la fa nekkoon ñaar ñu ñu la fa nekkoon Ousseynou Seck moom Ousseynou Seck moom. benn waay bu dëkk ci Burundi. ak benn waay bu dëkk ci Burundi. ñu di ko wax docteur Malagan. ñu di ko wax docteur Malagan. ñoom ñaar rek fa nekkoon ci nit ku ñoom ñaar rek fa nekkoon ci nit ñuul ci mi la. ñu def fa nag benn foire bu rëy yi nee ñu def fa benn foire bu rëy rëy. international bu international. ma dem. ma dem seeti. seeti. stand yi ñuy jaay wurus rek. ne stand yi ñuy jaayee wurus rek. day na ni fii. day na ni fii. ak préfecture. ak préfecture. lépp wurus la. lépp wurus la. xam na. xam na. am na ndaw su jóge woon Sénégal. am na ndaw su jóge woon Sénégal. gis na wurus yu bari rek. gis na wurus yu bari rek. téwéet. téwéet. mu sàcc ca benn lam. mu sàcc ca benn lam. ne ndekete caméra bi signalé na ko. ñu jàpp ñu jàpp. keroog li nu daj. keroog li nu daj. pour tiinu ko. pour tiinu ko. sunu soxla yëpp dafa mujj jeex. ne sunu soxla yëpp dafa mujj jeex. ñu nekk fa di ko tiinoog. ñu nekk di ko tiinoog. di ñaan di ñaan. ah ba mujj yàlla def na ca sutura. ba mujj yàlla def na ca sutura. ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko. nangu lampa ma ni ko wax gii gàcc lamu jamaa sax daf ko jar lamu jamaa sax daf koo jar wala lam bu jóge aljana wala lam bu jóge aljana jaru ko jaru ko su ko defee kon nag su ko defee kon nag ñu ngi leen di avertir ñu ngi leen di avertir surtout xale yu ndaw yi surtout xale yu ndaw yi duñu xale yu ndaw sax duñu xale yu ndaw sax am vingt ans. ndax ko am vingt ans. vingt deux ans vingt deux ans. vingt cinq ans vingt cinq ans. bu ñu la nee xaleel ngay. bu ñu la nee xaleel ngay. yi dañu lay nax rek. doo benn xaleel doo benn xaleel. te ñi ëpp ci ñu koy def. te ñu ëpp ci ñu koy def. ci boobu âge la ñuy toll. ci boobu âge la ñuy toll. su nga defee kon nag. su ko defee kon nag. mu ngoog. ngeen bàyyi ko xel. amiin yaa rabbal aalamiin. amiin رسولك الحبيب صل على المشرف المرضي وبشير ومبشر ربي وطالب يا سلطان حاشر وعامل ومقتفي المجرم الذي مستعجل اجلنا بجاي بابك العليم عين النعيم والصراط المستقيم لطيف يا محصي فاكرم قدرنا وتخفي سيد السادات سلم وسلم واسع العباد رمعان ماء الوصف يا رب الخلل ومدده من لا يلم شر الخلل يدعوك منيرا كل حروف من صلاة فاتح دعاء كرم متمدا بعظمك الكريم وتنقص السوء من المنصور سلم على سيد الرحمن سلم على الشرع والدين الكريم وآله وصحبه المتخلفين على الراجعين الساجدين المقتدين اللهم يا من أظهر الجميل وستر قبل الشفاعة يا نبي الله